ndax ñun xam nañ affaire bi yëpp lii métti fan la muy li nga xam ni moom lañ am moom la tubaab bi naan doñet yóbbu ko ci réew hôpital manqué wul dëkkam dund manqué wul dëkkam li gën a baax suñu dëkk jën ba gën a baax ñoom ñoo ñëw suñu dëkk ne ko coppet yóbbu seen dëkk lekk lépp lu baax rek pétrole ba ñu jël tibb yóbbu tànk yóbbu seen dëkk or ba ñu ñëw jël yóbbu seen dëkk lépp loo xam ne am nañ ko ci ay xeetu or nga xamante ni si depuis ñaata at ñoom ñu ngi koy ñëw di ko tibb sabadoola di yóbbu loolu lépp maanaam yàlla may nañu xéewal googu yàlla desaluñu dara yàlla may nañu loolu lépp léegi nag liggéey di dem di diyee ci ay gaal dee leen ko seen réew rek ngeen jéem a fexe góor-góorlu ba France li muy def nii mu dakk ñu téye loxoom ne ko France li nga tibb doy na tubaab li nga tibb doy na pétrole bi wax dëgg yàlla baa ñu suñ pétrole ñun ñi ngi nii di dem ci géej gi di dee sunu yaay yi ñu ngi xiif suñu baay yi ñu ngi xiif dara matut yéen manqué woo leen dara mais bàyyi leen ñu doy na affaire bi foofu lañ toll foofu lañ toll ki nar a dem jaay sa bakkan Barça jaayal sa bakkan ci lii ci sa senegal jaay sa bakkan bi mooy lan mooy ngeen yeete mooy ñu xool nan lañ mën a demee jëlee fi ñii si jàmm ak ci salaam waxuma ci ay waxuma ci jaasi waxuma ci dara yomb na lal la ànd xàccandoo dóorandoo na ñëpp bokk mankoo bu ñëpp bokkoo manko pour lii denc wallaahi dina deñ du continuer dana deñ ñi ñëpp xam ne ne leen lii doyna ndax dëkk yit ndax jaratul yaakaar naa ni njiit yi war nañ yeewu ndax jaratu ko Mali rek doy na exemple kilifa ya fa nekk tamit doy nañ exemple ndax am na loo xam ne wane nañ ko ànd ak askan wi ci loolu ñu ànd a xeex ko ñun ñëpp bu nu mànkowee comme la Mali def ñu mànkoo pa comme sax dem fële waaye ju doy na borom xel nit ñi bu demee ba pare ne leen lii doy na lépp luñ fi nar a woote lu bon ñu bañ. élection locale yi xawma lan ak lan ñu jéem ko taxawal muy maire yi maire yi nga xam ñoo nekk ci dëkk ba waa dëkk ba bëgguñu leen xam ne maire yi liggéeyul mbënd ba mi ngi leen di sonal leneen mi ngi leen di sonal ñu jéem a fexe def nag loo xam ne si xam ne waa dëkk bi ñoom ñoo ko bokk nekkul ni yéen di ngeen jël alal bi rek gourmand seen doom seen i njaboot séddoo ko bàyyi nit ñi di bëgg a dee xiif ak mar mais au moins dimbali leen nit ñi pour affaire maire yi ñi nga xam ne am na maire yu baax ñoo xam ne mënuñu liggéeyul di sàcc alalu askan wi dimbali seen waa fan nekk léegi ñu folli ñooñu ngeen jéem a fexe élection yi mu tege ngeen respecté askan wi ngeen bëgg askan wi ngeen am deretu góor buy daw ci yéen ndax lii bu continuer fa mu jëm la ko nit ñi sës nañ de nit ñi sonn nañ de léegi yéen te ngeen ànd doxum ñaxtu wala ngeen def lu mu mënta doon pour rek ci lu rafet nag laa wax ci lu rafet nag laa wax waxuma pour ay jëli jaasi wala dara mais yéen ñëpp ngeen ànd mbànkoondoo ngeen wax ñi fi nekk dëgg ngeen wax ñi fi nekk ne leen seen lii doy na li ñuy li ñuy jël ci alalu réew bi sabadool ak pétrole beeg yëpp doy na ndax dafa doon loo xam ne ñëpp a xamandoo lu xew kon léegi ana wan yoon lan war a jaar ana lan lan war a def ci ay ñeenti personne dong ndax ñi jiite rek a fiy def lii du leneen ndax ko fi am doole nguur moo la dooleel moo la may Sénégal ngay kii lii mais bu deen nguur am na fulla am fayda wallahi tallahi lii du fi am nguur bu amoon fulla am fayda kan mooy ñëw di jël sa pétrole réew tegu ko fedd di la jox ay contrat yi bon kan mooy ñëw di tibb sa or di ko sàcc di ko yóbbu di tegu ko fenn kan mooy ñëw ñu dénk la maire ñu dénk la tele bi ñëpp dégg ko mu doon lu siiw ñu ne maire bii jubut maire sàngam defaluñ dara ci dëkk bi mais loolu wan xeetu jiite la yow nga xam ko nga dégg ko réseaux sociaux yi di ko wax ñëpp dégg ko ñëpp xam ne lii mooy li nekk mooy li am amul secret ñu koy wax ci tele yi nit ñi waa koñ ba jóg defum ñaxtu vidéo bi ma dugal sànq nii comme vidéo boobu rek loolu rek exemple la bu leer naa ñi ñee amuñu dëkk waa dëkk ci boppam taxaw di jël sareetu mbaam sareetu mbaam boobu dem dugg waa dëkk ba ci boppam ñoo ko wax ay paa nekk fa ay kilifa ñu war leen nii vidéo ay maire nekk fa yenu ay soon yi ak i kii yenu soon yi gone yi wër leen ñu takk ay morceau yu xonk seen kii carrément di wax doxum ñax dëggantaan ni leen ñoom ndoxu yàlla gii la naan du ay teen du lenn ndox bi taw yàlla taw ko ñu ne yàlla moo leen tawal taw boobu ci loolu la ñuy dem sareetu mbaam yi dem dugg ci biir xuus yi nit ñi xuus ci seen dàll bu mën leen jox feebar bu nekk yàlla rek leen di sàmm ah ñu jël waaj yi def laa fi jiw tanq tànk ci naan nii carrément di ñu di ko gis ne seen dëkk yow hôpital amu fi kayitu juddu ci boppam pour nga bokk yow kayitu juddu li nga xam ni kañ nga juddu ba sa date de naissance ñu ne la kayitu juddu balaa nga koy am di nga toog ñaari weer yoo xam ni maanaam ci ngay soog gis kii bi te boo ko gisee dina dem ñaari at ci kayitu juddu heure bu nee élection jot na ngeen sawar ci kayitu juddu yi ku ci nekk ku dëkkul Sénégal sax ngeen lijjanti ko ay kayitu juddu xam ngeen ni kon loolu kon maa tey la pas comme affaire ñàkk respecté di ndax élection fu mu jotee di ngeen utal ay kayitu waxuma la kayitu juddu nationalité ak carte d'identité ñu dëkkul Sénégal ñoo xam ne ci àll ba la nekk ay Mauritanien ñu jël leen defal leen ay carte d'identité ak ak képp koo xam ne bu la wóoree ni kii boo ko utalee carte mu wooteel la nga toog pour nax askan wi pour foowee askan wi di nga ko ko utal mais kon jumtuwaay yi am na kayit ya am na fan koy defaree am na mais yéen a lànk respecté wu leen askan wi kon nag askan wi nag nañu ànd ñun ñëpp nag ñu yeewu nag xamandool yi ñu ànd xeexandool yi ñu ànd xeexandoo ñu ànd xeexandoo lii xam nga moo tax kon ñi nga xam ne nag ñi ngi dem Barza ak Barza affaire bi dafa leer naa ñi Ousmane Sonko woote ne woote leen ci mbay mi nekkul bu fekkonte daf leen woo rek balaa balaa dong te kenn falu ko tus ab sénégalais doon ab patriote bëgg réewam kenn falu ko dara ku mu woo mu wuyu ndax na wi doy nañ ko moom woote na mbay mbay mi Ousmane Sonko woote gis nañ ci résultat bu leer naañi kànja gi gis nañ ko kànja gi rafetee di mosuma gis. kaani gu rafetee nii xeeñee ni xeeñ gi sax wóoruma waaye rafetee ni ci gis-gis mosuma ko gis woote ne woone leen ci mbayum ceeb woone leen ci lépp mais léegi affaire bi kon Ousmane Sonko wane na yoon bi mais léegi yéen président njiitum réew ngeen jàppale Ousmane Sonko ci lii mu woote nii ngeen xam ne lii du affaire Pastef du mbirum politique mbirum Sénégal la pour gone yi bañ a jaar ci gaal gi am nañ solution mooy mbay mii lañ bëgg ngeen jàppale Ousmane Sonko mu gën a indi ay xalaatam ci lii nga xam ni nekkul mbayum noor ak nawet gaay yi di jaar barza barzaq bu ñëwee fii ci ay tool la ñuy liggéey ñu leen fay ay trente euros ay trente cinq euros ba pare yu ci bëri ci tool yi sax ma xamal leen ci benn secret bu ci nekk am na yoo xam ne ay produit produit sumi yu ci nekk yoo xamante ni si wallaahi ay sénégalais dañ koy liggéey fi di ko noyyi di ci dee wallaahi rey na ay sénégalais li ma leen wax lu am la billaahi wallaahi ay sénégalais yoo xam ne dee nan li leen rey danoo nekk ci tool yi di liggéey tool yooyu ñuy liggéey tubaab yi duñ fa yóbbu si ay tubaab ay sénégalais lañ fay yóbbu ndax foofu dafay tëju ñu dafa ay produits chimiques yoo xamante ne si maanaam kooku mën nañ la fay trente euros mën na la fay trente cinq euros mais loolu doo ko jariñoo da fay liggéey juróomi at faatu dee ñu kees ñu jël ko yóbbu ko Sénégal kii ko dañ leen ndax loolu tubaab du ko liggéey loolu waroo ko liggéey di ko nooy façon liggéey yi mel noonu ci tool yi nii loolu loolu mi ngi fi. yow nga jógee bu dee ca gaal nga jaar bu dee avion nga jël loo mënta jël nga ñëw fii nga tay sa bakkan nga saraxa sa bopp am na du tool yëpp nag am na tool yu ubbeeku yoo xam ne yooyu mën nga fa bay amul problème mais am na xeetu tool yoo xam ne ku fa liggéey juróomi at nga dee ay nit ñi ngi fiy dee ngir seen njaboot ay nit ñi ngi fiy dee ngir sa yenn gàcce yi ndax as gor maanaam torox dee moo ko torox dee moo ko gënal as gor xëy bëgg a liggéey amuloo foo jëm moo tax bu leen blessé nit ñi waay bu leen blessé nit ñi waay ku amul xëy ñaanal ko yàlla nga am xëy bul ko xas yàlla mooy maye yàlla mooy joxe wërsëg ak tamit ak sabablu mii nit day sabablu bëgg a xëy amul fu mu jëm billaahi amul fu mu xëy xamul lan la war a def xamul boo di yoon lay jaar mais booy xëy day am fu xëy day am ku lay day am looy liggéey day am foo jëm mais nit ko amul fu mu jëm xamul fu mu jëm xamul lu mu war a def xamul lu mu war a def day xëy rek tëñëx tëñëxi nii rek tëñëx tëñëx tëñëx xamul fu mu jëm mais ñaanal leen ñi amul xëy yàlla nañu am xëy bu leen blessé góor yi tamit góor yi góor yi nga xam ne muñ na loolu ba sonn mënuñu ko muñ mu metti si ñoom ñoom gore ak doon góor ak ay doon ay góor yàlla ñu ne lii dee moo ñu ko gënal mais nañ risque suñu life ñu jaar ci gaal gi sawaay luñ fi am baax na aw ma fu xëy aw ma fu ma jëm xaw ma lu may def xëy naan caan caan bi may naan dañ koy koloo koloo on direct mbaa fefti kii ñëw sawaay sànni kii kii ñëw sànni fële ñu taqale teg ataaya toog ci baa jaaxle toog baa jaaxle sax lañ ko tuddee ndax xamuñu fun jëm baa jaaxle dëgg la mais amuñu fun jëm amuñu fun xëy mais comme te Sonko wane na solution carrément loo xam ne ñun teg nañ ci suñu bët li am muy bay bi bay bi suñu Sénégal gi wallahi buñ wàññee pàkk yi gars yi bàyyi comme ñu bañ a jël lépp rek jaay ko yéen fan war a bayee lépp jël ngeen tabax fa ay société tabax fa ay affaire fépp foo xam ne wàllu bay ak suuf su nangu gu la yàlla borom subhanahu wa taala may suuf su nangu soosu lépp fépp fu baax fu war a bay def ngeen ko ay hectares yi hectares yi ko ci seen biir jaayee ko nu leen neexee askan wi dañuy dem dinañ dem ba am problème mu bay wala day tojaat ay kër dem nañ sax ba jàpp ni sax fi mu toll nii business bi yëpp léegi business su pàkk la Sénégal koo ci dégg ñu ne la lu gën a dox mooy suuf suuf moom loo ci def du perte mooy lan mooy dangay jënd sa pàkk nga borne ko. foofa ñu waroon fa bay kenn bayu fa keneen jënd carte borne ko keneen jënd pàkk borne ko borne nañ fépp fépp ay pàkk yu borne la ana bayukaay yi te solution bay am fi te mbay mi doon luy koom-koomu réew doon luy suqali réew doon sax luy jox wér askan wi ndax garab yan yi nooy yeeg air boobu di fa ñëw ak loolu lépp mais nit ñi amatuñ pexe ñi am doole di gën a am doole maanaam waxatuma sax léegi mais gouvernement bi ñoom ñooy am doole bu ñu amee doole hectare fa gën a baax ñu jël ko buñ ko jëlee def ko ay pàkk ay kii naan dañ koy kii nax nit jaay ko ay pàkk pàkk jaay ko ay kër kër kër kër ay kër kër kër yoo xam ne baadoolo yi amuñu kër baadoolo yi mënuñu am kër nit ñi nekk fii di luyaas luyaas bi diis gann mitti lool ñii nga xam ne amuñu kër mais kër jënd ay kër borne borne mais ut leen ay solution ngeen bàyyil ñu ay ay ay foo xam ne dinañ fa mën a bay ngeen bàyyil ñu kii yoo xam ne ay espace yom dinañ fa mën a bay gars yi bàyyi business su pàkk pàkk pàkk pàkk pàkk pàkk fu ñu jëm pàkk pàkk léegi li dox man ma jënd fukki pàkk keneen jënd fukki pàkk di ngeen dem ba mu yàgg sax di ngeen am problème jaay pàkk yi ndax koo ci wax projet bi gën a dox mooy jënd pàkk projet bi gën a dox mooy jënd pàkk borneel mais dañu war a bàyyi ay bay kay dañu war a bàyyi ay terrain football dañu war a bàyyi comme ay jardin ci fii ni ñu koy defee ci Italie ay nit di dox ay kilomètres di gis nii ay ñax di gis ay baykat dafa neex sax si xol di gis naturel di gis loo xam ne lu kii la quoi gis nii léeg-léeg nga gis ki yor sa sareetu mbaam sax même cosaan yooyu sax ba tey sax dafa rafet waa dafa neex ci xol mais lépp ngeen bëgg ko tabax lépp lépp lépp lépp ngeen bëgg ko tabax moo tax léegi solution bii nga xam ni am na Ousmane Sonko wane ne fi lu leer naññ sénégalais yi jàppale leen Ousmane Sonko. jàppaleen Ousmane Sonko président jàppaleen Ousmane Sonko Ousmane Sonko li muy wootee du pour moom Ousmane Sonko mbay mi mi wax pour ñu suqali mbay mi te dëggantaan dañu war a suqali mbay mi mu mu suqali ko ba mu ba ba mbay mi mbay mi nit ñi delluwaat cosaan ndax fi mu toll nii lépp dañ koy jënd li ñuy bàyyi la gën a baax Auchan jënd ko xaw ma fu Sénégal la koy jëlee pakatawaat xaw ma la ñëw di ko jaay doomu askan bi mais fexe leen léegi Auchan la mu am wala Carrefour la mu am wala keneen la mu am ngeen fexe doole sénégalais ñun ñu xam bay <coughs> ba pare ngeen yombalal ñu. <laughs> sama gars yi maa ngi jéegoon ba pare ngeen yombalal ñu ba pare ngeen yombalal ñu maanaam mbay mi Ousmane Sonko ngeen jàppale ko gën ko dooleel ndax mbay nekkul noor ak ak ak ak ak ak ak ci ci ci nawet bi rek la ñuy bay léegi noor gi du ñu bay loolu li ñu koy yombalee mooy ndoxum taw gii di kii ay mbënd di indi ay mbënd nii ndoxum taw yooyu da koy réserver da ngeen di ut dencee ndoxum taw yooyu ndoxum taw yooyu moom la ñuy jël di ko rosé waat sunu garab yi mais xaalis bu leen jox ngeen jël lekk xaalis bi ne jox ngeen yàq ba ndoxum taw yi bu ñëwee day yàq te ndoxum taw yooyu taw bi yëpp xéewal la mbënd boobu mën nañ denc ndox boobu pour léegi yombalal nit ñi utal leen ay kii yoo xam ne pour ñuy mën a génne ndox bi di mën a kii bu baax a baax di roose maanaam nga xam ne noor ak newet dañuy bay bay bi ngeen gën a dooleel nit ñi jox leen ay jiwu yu doy jox leen ay jàppale Ousmane Sonko ci wàllu mbay bii bi mu woote nii ngeen xam ni pour réew mi la ngeen xam ne pour njariñal réew mi la bu boobaa nit ñi duñ dem barsa duñ dem barsaq ngeen jàppale nit ñi ci mbay beneen bi tamit nappkat tamit ngeen jàppale leen. man maa dégg benn waajoo xam ne waajoo du fen li moom dëgg lay wax mu ne benn tubaab la doon tubaab bi ci boppam italien la mu ne ko moom ñoom Séné ñoom Sénégal foofu la ñuy dem di sàcc jën waxuma leen dem napp napp normal de nee na Sénégal la ñuy dem ñoom di sàcc jën mais xool leen dëkk bi ba sa alal baykat yi lan war a nappkat yi lan war a napp ay nit dem sàcc ji ko. ay italien ay keneen keneen dem Sénégal kenn du leen jox autorisation kenn du leen jox dara te kun si jàppoon dañ lay bàyyi ndax tubaab nga danoo am sa complexe ba pare saytuwul leen yéen yor si seen réew saytuwoo leen dara ci alal ku mën a sàcc ñëwal sàcc ku mën a foqati ñëwal foqati tubaab lii lay dundee ñun ku mën a jaay doole ñëwal jaay doole jën yaa ngi nii ay tubaab ñëw di sàcc suñuy jën suñu nappkat yi kenn joxu leen ay matuwaay yu baax pour ñu dem napp ji mais nappkat bi boo ko joxee ay jumtuwaay yu doy jàppale ko ci napp bi bañ a jël géej gi jaay ko sin waaye ñeneen di kii nappkat bi dafay dimbali waa réew mi loolu noonu muy napp noonu di ko indi moom da ciy gis boppam napp dafa dox njabootam gis ci boppam ñu jaay ñu ko ci prix yomb ngeen yombal ko nit ñi di lekk ay coof di lekk ay kii mais amatoo ndëkk sa dëkk fees dell ak jën amoo mën mënoo lekk sax yabooy yabooy sax amoo njëgam mais lii àdduna gu tukki sa dëkk fees dell ab jën mënoo lekk njabooy sa dëkk fees dell or mënoo am or sa dëkk fees dell pétrole mënoo am ak naaj lépp loo xam ne lu baax la mënoo am courant bu baax yow lépp yàlla indil ko ci sa biir dëkk gii mu leer nañ lépp yàlla indil la ko yow courant dangaa am buñ la waxee ci wàll courant yow wax la ak courant li koy dawala lépp lépp boo la Sénégal billaahi da nga naan da nga naan ñun ban dëkk la nekk ñun Sénégal courant waru fa coupé ndox. bi ñuy wax nii ndox dañ ko doyal sëkk sëkk européen yi ñoo leen ëpp ndox ndox da nga koy manqué dëkk boo xam ne yaa gën a ëppale ndox bokk ci ñi ëppale ndox ci àdduna Sénégal dañuy wax oh, pétrole or lii rek mais li nu am ci lu bari loo xam ne lu nu mën a jariñ moo bari ndox bi rek ndox bi rek dafa doon ci xéewalu yàlla borom subhanahu wa taala ñun bokk nañ ci dëkk yi ëpp ndox dëkk yi ëpp ndox am koo xam ne balaa muy mën a naan mooy pël yooyu ngeen gis noonu ñu ne dañ leen joxe gaas yi ak xam nga ni yooyu duñ dem ñooñu pour ñu naan ndox bi yàlla taw nii ba mu taa ba kii fa salte ay sareetu mbaam la ñuy ànd yéeg fa ak seeni dàll yi salte dugg fa ci la ñuy kii naan ndax amuñu pexe ni bun ci naanu dee nit ki wane ko nii carrément guux ndox bi pour wan ne ni li may wax rek dëgg la pour sénégalais gëm leen ma ñun ci lii la naan jël ndox bi guux ko ndox boo xam ay dàll yi salte ay fasu mbaam fasu mbaam yi sax mën nañ fa def ay nefere ndax mala moom mala la xoolul ndox bi set na fii set na def fa nefere loolu nit ki tànk ko mën ko toggee mën ko naanee mën ko lekkee solution am na Ousmane Sonko mbay mi mi leen woo ngir yàlla pour barza barsàq bi jeex pour du fi am monsieur le président pour lii bu fi am barza barsàq jeex jàppaleel Ousmane Sonko ci mbay bi mu woo bi mu woote ndaama raas gii bitim réew de fee seer ñun ñi mën a def ay toolu ndaamaraas yi mag a mag di ci defar ndaamaraas yi gën a baax di fexe ngeen yombal ni ñi nan lañ ko mënee indi Europe jaay ko comme indo yi ni ñuy indee seen i ci biir Europe fii di ko jaay Pakistan yi li ñuy indee seen i fii seen i bagage ko jaay fii loo fi lekk ci Pakistan yi la joge wala indo wala waa mais du Sénégal mais pourquoi da ngeen ñu jàppale amoo leen fulla ci tubaab xeeb seen bopp moo tax tubaab tegu leen fenn loo leen am lu baax mu ñàkkale leen ko solo. loolu leen am lu baax mu ne leen di leen nax naan leen lii day feebar loo nit gerte gi boo déggee ni la ko waxee ba kii la nga naan dootoo lekkati tige dige bonal nan ko bonal ko bonal ko ba nga xam ni te du dëgg fii boo ñëwee fii mercato yi bokk na kii gën a seer gerte diw gerte moo gën a seer bokk na ci diw yi gën a seer fii ci ci ci ci bitim réew fi ñu leen di nax jo ut seen médecin tappalekat ñu def ci ay documentaire def ci ay wax naan leen gerte li muy def nit boo ko lekkee da ngay kii boo ko lekkee da ngay seere boo ko lekkee bonal ko bonal ko bo ay naxee mbaay foñu comme ay bébé ay xale ñàkk jom ñak ful lii dafa mitti yombalal leen baykat yi waay dimbali leen baykat yi di leen jox ay njiw dimbali leen seen mbay yi ko bayee ba pare ngeen jënd ko ngeen bañ leen toog di leen koñe ba duñ ko mën a jaay du bitim réew du fii dimbali leen nappkat yi ñu mën a dem napp ci jën bi nga xam ne seen jënu nday la seen jënu baay la seen jënu maam la jën la ñun ñoo ko moom nappkat ba mënu cee napp nappkat ba mënul napp ci jën bi pour moom mën ci am lu mu dimbalee njabootam mën a dimbale boppam xañ ngeen ko nappkat ba ñun ñi nga xam ne ay sénégalais tam moom suñu géej moom suñu jën ñun mënatuñu lekk jënu coof patron rek moo ko fay lekk te pour nga teg ci bët sax jafe na lu baax lu ne ngeen jël yóbbu Europe jàpp ni européen ñoo ñu gën lan la leen yàlla deseel lan la leen yàlla deseel ngelaw richesse la yàlla may leen ko yéen senegal bu leen neexoon sax ay solaire sax ngeen ni kii courant même bu coupé affaire solaire dafa war a yomb Sénégal ndax naaj moo ko joxe ngelaw ak yooyu li koy joxe lépp yàlla may na leen ko am am ngeen ko yéen am ngeen ko manqué woo leen naaj ndox bokk ci richesse yi yàlla may leen ndox karo bokk ci kii yàlla may leen karo jën bokk ci xéewal yi yàlla may leen ko mango yàlla may leen ko màdd yàlla may leen ko yàlla may leen lépp ba pare lépp lu leen yàlla may ngeen yàq ko sabote ko xoolal rek bu fekkonte ne am ngeen ay nit yu baax ay njiit yu baax yu leen yu leen jiite benn demal sandika xaw ba léegi moo fay am wala mais manga fuusaa yi da ngay dem gis gars yi ñëw di dëggate ay manga fuusaa di yàq mando senegal xamul amuñu pour xaw ma di denc quoi di denc ñam ñun màdd bu xewee ci temps ba ci temps ba rek nga mën a am màdd mango bu xewee temps mango bu passé dootoo gisati mango loolu du yoon mango yi dañ ko war a denc madd yi dañ ko war a denc ndax mango yooyu mën nañ ko def ay bu njiitum réew mën na dimbali nit ñi ba ñu am kii yoo xam dañuy transformer mango yi mango bu demee ba mango kii ñu nar ko def mango fuusa ñu jël mango bi nar ko sànni ñu jël ko defar ko loo day nekk fur fruit sekk boo xamante ni si fruit bi du yàqu madd gi tamit noonu mën cee def ay jus ay affaires yoo xam di ko indi fii ci Europe di ko nit ñi. ndaamaraas gi noonu mais Sénégal mango bu ñëwee ñi ñëw lekk ba pare xamuñu nun koy conserver xamuñu nun koy dencee lan lay def mango fuusaa dem dëggate ko ci seen tànk mango yàq ñu dem sànni loo xam ne nit war na ko mën a lekk wala war ci mën a def yoo xam ni mën ko indi bitim réew pakistanais fii da ngay gis ñu ko fiy jaay mu seer fi lool mango yaakaar naa mango bu gën a nekk fuusaa sax moo gën a mën nekk jus mango yii yëpp ngeen gis ko ci Sénégal wax dëgg yàlla Sénégal yàlla may nañu lépp kenn waru fa toog di sommet ñëpp war nañ mën a liggéey buntu yaa ngi fi mais jàppale wuñ leen te ku ñëw di leen jàppale nag ku moytul dañuy ñëw sax ci tànkam fu nu jëm sama gars yi ngeen partagé live bi salaamaaleykum wa rahmatulah.